law nii ci wàllu teraanga ni tur bi te lépp jig ak seen ay njaboot defal leen ko defal ko chaîne yëpp defal ko sénégalais yëpp surtout sénégalais yi sénégalais yi dañoo mérité am lu baax waaw sénégalais yi dañu sénégalais dañoo sénégalais sonn ba lot tourné di la ree mel mhm. ni ko amul benn pour jafe-jafe loolu ñun rek la ko yàlla may mhm. sénégalais day sonn jaaxle nga wax mu ne waaye yow sëñ tubaabul morom booy eh. wala mu ne la waaye yàlla baax na booy Mm-hmm. kee na la barke maam xalifa mm-hmm. kii na la waaye yow yow doomam dimbali yow yow maam bu lijjanti lépp kunta oh. kee na la maam bàyyi rek la na problème bi ca démb booy mm-hmm. man sama kilifa yi laa am sama wasila yi kii na la Cheikh Omar Foutiyou nee na ma nga ca falaise de Bandiagara nanu def nii ak nii ak nii li nu fi ama bare sunu bokk chrétiens yi boo leen ne Hyacinthe cardinal Thiandoum seen xol sedd ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi nuyu archevêque ak ñëpp kilifa yi xam na euh, dañuy ñaan suñu borom mu may ñu ñu fekk lu yàgg tal ko mhm. mais ñaan aussi mu kàttanal nguur gu bees giy door a falu mhm. euh, nguur gu bees guy door a falu te defagul mhm. ñaanal ko mu def rek la ñu mën ah. yàlla na yàlla yombalal leen ñu réussir seen mission te Sénégal avancé yàlla na yàlla def tam roof baax baax ak ak kattan ak euh, pas-pas ba information bi gën a kawe sax lii Ah, ak lu ni mel mu gën a kawe vraiment parce que réew boo xam ni am nga lu ñoo wax méthane dans le nord du pays méthane mhm. ñu doon wax zircon wax wax or wax phosphate wax wax calcaire wax euh, wax wax gaz léegi ñu ngay wax méthane <laughs> yàlla bëgg nañu de mhm. man ma xamul ndax ñun lu dama xamul ndax ñun yëg nañ li xew yàlla bëgg nañu de kilifa yi diñu xamal ne méthane boobee machines yi kaa liggéey benn bi cent vingt milliards lay jar boo ko jëndee cent vingt milliards ñu ne tey état wu Sénégal am na ci benn wala ñaar wala ñett benn bi dina liggéey par jour trois cent millions jàpp cinq cent millions par jour kon xaalis la. Mhm. waa duñu waxtaane yooyu lijjanti loolu. waxtaane koom-koom yaatal ka waxtaane économie. tey bu ma amoon dogal ci sama mbokk confrères yi presse bi yëpp dama naan gars yi kaay waxtaane économie gis nga ces histoires de faits divers là ces faits affaires faits diversières là xam la mu doon kii un milliard kii kii loolu du du du lu extraordinaire ci affaire Benno Bokk Yaakaar moo tax man j'ai pas dama leen dafa ne dama leen tarafu dama leen di araftu <laughs> j'ai même pas envie d'en parler <laughs> billaay parce que scandale bi non affaire lu laal ci affaire ngeen di ñuy wax nii comme si lu non Il ne s'agit rien du tout pour APR. Non. De, non. non du buddee c'est plutôt dafa dafa dafa tombeek ma waroon dem parce que j'avais une urgence. ah mais mais damaa expliquer ne. Hmm. non foog ñu élever niveau bi. faw ñu dem ci ci ci feneen daal. vers l'essentiel saa yi ñun dañoo toog ci alal ju bëri ñun ñun ñun yëguñu li xew de. Hmm. ñun sénégalais yëguñ li xew ñu ngay tërëf tërëf yi dem rek mais xamuñ li xew ambulant waratul am Sénégal te ñun bu ñuy wax dafay mel ni genre bon dans dix ans dans quinze ans déedéet that right now. léegi léegi. affaire baa ngi fi léegi nii tout de suite que il faut que loolu ñu dimbali ci suñu nguur yi ne leen bu leen nangu gars di leen wax dans cinq ans dans dix ans dans ñun ba ñu juddoo ba tey ñu ngi ñuy wax dans. Mm-hmm. trois points de suspension ba ñu juddoo ba tey ñu ngi wax dans dix ans dans quinze ans dans France aujourd'hui il faut qu'on nous dise gars yi affaire baa ngi nii neex na yàlla dikk na léegi nag nañ liggéey ambulant waratul am fii mhm. tout le monde doit bouger nii nii nii ñu jël suuf si yëpp jox gars jël leen état bi ñëw tuur xaalis xaalis baa ngi fii xaalis baa ngi fii mhm. toutes ces multinationales la qui sont na état wane dooleem léegi waa banque mondiale multinationale boo leen laalee ñu ne la banque mondiale taxaw FMI taxaw ñu ruubee ci suuf tiital la pour nga bàyyi leen may leen jàmm. Hmm. non nga leen FMI laa ñaat laa leen amel ñu ne la temps nga leen d' accord. Hmm. parce que lii fay loolu mu ngi fii suuf saa ngi fi xaalis baa ngi fi ñu ne ñaata la nan ak lan la ñu ne ok nañ ko teg nañ ko organiser barke alxuraan mu ngi fi léegi nag il faut que l' administration centrale. l'administration sénégalaise en général les fonctionnaires d'État yi fi ne ak nguur gi ñu ne ok kaay la ñu def lii ñu régler problème yi ne léegi nañu xool nu ñuy defee bloc sauf que <laughs> diggante UEMOA ak CEDEAO dafa am benn sax bu ci nekk sax boobu moo leen mooy tax mënuñu libre. mooy mooy ban kii. mooy France mooy sax bi moo nekk ci biir di def nii seen biir c'est ça la vérité. te te li ñuy jox alal ji ba dootuñu nekk ci jafe-jafe yi mu ngi ñu saa yi nu ngi ko tiim nii xam nga tiim sa alal te mënoo kaa laal mm-hmm. ngay calculer di dépendre di ragal te li ngaa ragal du weesu téléphone bi ñu lay contrôler di la déglu wala boo xefee ñu war la say vidéo démb wala bërki démb ak say image ne la ne la booy yaa ngi nii ak leneen ak leneen ak leneen amul leneen mm-hmm. wala nga ragal ñu faat la maar de um si mm-hmm. créer la dugal la ay problème def ay faux billets ci dëkk bi jaxase xaalis bi. Mhm. jaxase économie bi nit ñi mer coow li ne course sa nguur daanu non. wakkeelu ci borom bi taxaw ne leen allez bu faire voir ailleurs dañoo toll ci temps bu neex bu nu fippoo bu neex sax boo ko wax nag ñu lal da ngeen yàkkamti mais dafa am fu ñu jóge am fu nu agsi léegi nag choix la d'être libre ou de paletre mais un milliard nii lii du dara ci mhm. affaire. affaire boo gasoon fi ne nii saa yi eh te loo te luñ ci wax ñun fii toog ci plateau yi di wax. Mm-hmm. Mm-hmm. nguur gaa ngi ci téye àll. lu tax ñoom appliqué wu ñu dañu war a ak justice. ci yu mel nii ah, loolu nag moom wax dëgg yàlla. ñoo bari ñu naan dafa yéex. ah man de bokk naa si ñi naan dafa yéex waaye nag ñoom toujours dañuy wax ne lii ak lii ak lii mbiru état la audit la du lu yomb il y aussi des règles et lois qui font que xëy rek téye ministre mun a nekk. Mhm. il faut que mu am fu mu tegu fu mu lale. et cetera et cetera et cetera donc il va falloir patienter sauf qu'au moment de patienter il se passe quoi. Mhm. lan moo xew moment bi ñuy patienter. Mhm. kan moo jàll kan moo jàllale kan moo dem ku demul. quand le président de la République fekkul dara ci kees yi. concernant la caisse noire. une caisse noire de huit neuf dix millions dix milliards wala voilà onze milliards en tout cas autant. soo ko dépensé sur quoi douze ans c'est au moins cent huit milliards le président a, a utilisé ça Mhm. mais mais mais si on dit que euh, mouvement dafay am si magistrature bi d'ici donc euh, mën nañ njort ni xëy na loolu la ñuy xaar loolu moo tax en quelque sorte ouais. parce que tamit il faut nga teg say say homme de confiance aussi euh, ni bon parce que façon sénégalais yàkkamti nañ mais li ma mën a bëgg laaj c'est vrai que bëggoo ci wax sawaroo ci wax mais est-ce que tu penses que réellement yoon daf ci war a dafa war a ci mbir mi ouvertement nii nga wax nii un milliard et poussière nit jox na ma deux heures du matin est-ce que que yoon war na impliqué wu ci ci wax boobu. mais Ousseynou. Mhm. li yoon war a def Sénégal te def ko moo bare. Mhm. sur ces dix ans là yu mujj yi. Mhm. li fi xew ci loo xam ne yoon dafa war a taxaw te taxawul ak a bare. lu tax taxawul il faut la question et voir lu tax jusqu'ici fi ñu toll nii yoon newul bëri. bëri anticiper rek attaquer. doo comprendre. quest empêche tey procureur mu ne. Eh, wool leen ma waa ji sauf que bu dee procureur actuel mm-hmm. ak contexte bi ak situation bi ak moom fi mu jóge mm-hmm. ci li fi jot a jaar mm-hmm. te ñamu doon jiiñ tey ñoo falu compliqué na de pour mu tëb rek song ni donc looloo tax sa ñun ñi mel ni ñun man par exemple dama jàpp ni conseil supérieur de la magistrature président de la république def ci war a génn tant ah mu ngi ci am influence le procureur vouloir s'autosaisir d'une chose ne non président bi calculer ko rek bàyyi di xaar nag président bi woo ministre de la justice ministre de la justice ñu war ko woo ne ah bah il faut appeler l'autre là alors que la justice elle doit être libre mais c'est pas c'est pas risqué aussi ndax suñu suñu suñu juge yi am nañu peut-être ndëgërlaay bu mel noonu bu président Bassirou Diomaye Faye war a seppi loxoom euh, ci conseil de la magistrature parce que ñenn ñi ne dafa am ay risques yu ci nekk en fait toutefois mu génne ci loxo. Euh, ñoom Souleymane Téliko dañ ne woon. Mhm. conseil supérieur de la magistrature président Macky Sall daf cee war a génn. Téliko. ah loolu la ñu waxoon. Mhm. léegi ñeneen ñi wax ñan la. il faut nañ xool ñan la rek. Mhm. ñu comprendre. mooy ñi bëggoon Macky Sall kon ne des ci. parce que loolu leen arrangé. même nit yooyu ñoo waxaan fa fait. ah neexut a dégg nag. dañ ñu baal de. conseil supérieur de la magistrature Pastef ñoo ne woon saa saa président daf ci war a génn. keroog Amadou Moustapha Ndiak. Mm. Ndiak Ndiak Sare. ca Walfadjri penco bi ñuy def penco mu ngi kaa fàttali. ne effectivement nous c'est ce que nous demandé nangam nangam aujourd'hui waru changer loolu. Mm-hmm. parce que la taxoon nu kaa nu kaa wax. attitude du président bi la. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Diakhar Faye maanu teem. ci li mm-hmm. ñu gis. muy moom di Ousmane Sonko bu ñu amee maanu boobu. waaw bu keneen faloo nu muy demee. keneen koo xam ne dafa mel ni Macky Sall bi fi newoon. Mhm. su ñëwee nag en face gis ne mu mënul def n'importe quoi loolu sécurité la pour dëkk bi mais bu fekkee ne président mooy buur di bumi justice boo waree def dara sóor ko wala boo ko defee ñu risqué jël la yóbbu la fu sore. Mhm. loolu baaxul ci dëkk. ñu bëri nag ñu ngi naan non non il faut pas créer la république des juges. Ouais. république des juges am na ca jamonoy Macky Sall. pratiquement. lu ñu jàppaloon Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République. post Facebook. voilà. Ousmane Sonko waaw Mame Mbaye Niang am na rapport bu ko épinglé xaw laan lan wala rapport bu wax ci moom. non rapport boobu moo tax Ousmane Sonko nekkul candidat. justice république des des des juges amul moment boobu ba juge Sabassi Faye di jëngu. ak coon jëngu jëngu nekk ay héros. Mm-hmm. loolu république des juges la wala la. mais c'était la république des juges. quand même aujourd'hui quand on vient me dire non on vous parle de la république am na ba pare. conseil supérieur de la magistrature moo ko gën a yombal. bu ci président bi nekkee qu'est-ce qui va se passer il suffit que mu mu vouloir quelque chose gars yi dañ ko kaa defal. loolu moo di donc mu bañ cee nekk wala boog ñenn ñi nee nañu noonu mën na ci nekk mais ñu def des réaménagements mm. pour permettre par exemple à douze élus d'être dedans comme li daaw daaw de min di expliquer sur TFM mm. mais l'un dans l'autre ba ngeen bëggee dégg dëkk président bi am na lu ko doy sëkk sëkk sëkk ci exécutif bi na bàyyi justice bi doxal bu amee nitam bu am problème mhm. tey justice bi woo nitam dëkk bi day normal maar de si ak keneen ak keneen ak keneen mhm. donc bu boobaa keneen du am problème ci justice naan xaaral ministre bi wala président parce que équipe bu président wala ministre bi am na ku ci am jafe-jafe justice bi woo na ko sans trompette foog ñu ñu foog mu am saay des changements yoo xam ni xam nañ ni bii duñu ñu arrangé mais faw mu am. mais mais si si euh, le ministre de justice dit euh, wax premier ministre am ne ko euh, am nañ ko ñu jàpp fii si ñun la bokk ndànk ndànk ba premier ministre ñëwaat di ko wax genre détail yooyu aussi est-ce que waruñu si tenir en compte ñu koy bañ a wax si penc mi. bàyyi wàll ci xel. ah. maanaam genre détail yooyu. waaw c'est important ñu bàyyi. ñu bàyyi si xel balaa muy gàkkal mbir mi daal. tu parles